sous la de le promoteur multidimensionnel a présenté un événement exceptionnel Nous le 23 juillet 2023 à l'arène nationale première journée gender production Une journée 10 combats le 23 Narna Melni, Bangor Mbamba dem combat gladiateur yu amateur. comme sur le plat Bok na ci 2, Texas nar a jàkkaarloo ak usine technique bu daaru gëm sa bopp esamaay écurie Dalifor nar sëgg ak Pape mbay bu écurie Mox Fadam Jéeri bu écurie Samba Diaw nar laale ak Pape Kande bu écurie Thiaroy Sa Thiès Kër Malal écurie Samba Diawo nar a janoo ak Caatu Zenzela bu écurie Yoff Mbolo fils de Samba Diawo écurie Samba Diawo nar laale ak Boston 2 bu écurie Ramdan feu rouge bu écurie Lamsar nara tak ci kaw cargo bu écurie Malika combat bobu ñu paree ne ko monsieur Momar Ciss du maire de la commune de Kër Moussa kon wa Kër Moussa yëngu ndax sen beusango Bolo bu écurie Rock Énergie nara seug sëgg ak Mbaytin Junior bu Bosco Sow mbokki amateur yi néna len xew-xew bobu dafa nara ala dawme surtout Falang écurie Kayar ak Malik Niang 2 nara xëccio drapeau honorable député maire monsieur Al Sandoy, maire de la commune de Diender buñ Baba Jaxal bu écrit Jali Birama Thion nara a ak Ngewel bu écrit Yoff légui nak ñu ñëw ci daj depp gi combat bi ñëpp doon xaar combat bi ñu l'honorable conseiller Conseil des collectivités territoriales kooku la duppee le bâtisseur monsieur le maire de la commune de Kayar l'ami de la jeunesse kayaroise kokay monsieur Ali Ndoy bi jël drapeau bi ko la population de Kayar dans toute sa diversité muy grand combat bi nara a nekk ci Terry le champion du gender... Jam Terry la fierté de Kayar Jam Terry ne lii mbégte la ci mom nara première journée Ablaye Diakhaté mu nar ci jakarlo ak kooku di Ahmed dem bu Caaroy geej mané ko combat bobu kessé doy journée ci le 23 arène nationale N'arna yungu n'arna ner. neex ndax ci beus ba dinañ fa dekkal cosaan ku xewlé Ablaye Diakhaté ak le label Gender Production Events mbok jappal code bi 23 7 23 moom mooy jour jour bi bu ma waxee dëgg rek bi lamb doxul lamb doxul ndax euh, ñi ñi war a bëri bëriwul sama kalaat yi ñooy dem CNG tànnay mbër yoo xam ne que xam mu tax lamb ji bëgg yàqu te lamb ji loolu boo deuxième fois bi mooy politique sport sport kenn kenn ci politique sport moo yàq lamb ji lii freiné wu yëpp moo ko yàq basket baa ngi dox football baa ngi dox boxe baa ngi dox espoir yëpp lamba doxul té nak waa lamba du dug ci ñoo dugg ci politique mo tax la ñu freiné lam politique mo loolu waaw mbeuri yu mag yi bu ñu siiwee xele yi leen top té xele yi ku def li ñu bëgg ñu and ak yow ku deful li ñu bëgg xam nga la na cay mujj sa san lay xeer rek xele yi den amuñu sen cadeau moy xeer sportif day bolé ñëpp di nga bëgg nit di nga bañ nit sax te sport sax nga bëgg ko waaye sporté ba léegi du tàqale ah man loolu laa dund man man depuis depuis ma ne gone ñu ma doon ba léegi ñu nekk mag ay yori set boo nu fekkee da nga fekk ne tey la woon man loolu laa xam ci sport waaw. mais tey léegi gis nañ ba tey ba ci biir mbëri sax sànnante xeer mi am classante yi wax sa morom mbër lu ñaaw lépp rek ci coow li nga xam te mooy euh, coow bi. loolu lépp li euh, xam nga euh, euh, lan moo ko waral nekk mbor dag licence bu 10 000 francs sa morom dag licence bu 10 000 francs yow nga xeeb ko mbor du xeeb moroomam mbëray may mbër xaalis ñoo bu fay ñaari junni tax ñu mbër mbër VIP moo amul mbër la VIP amul mbër mbër la mbër 10 000 francs la dag mu dag 10 000 francs VIP amul mbër mbër la mbër yi nañ joxante seen moroom yi ay ab jar waaye foog na yow yaa gën yaa xale bu ndaw bi soog a commencé bëre nga dag 10 000 nga dag 10 000 10 000 mu dag 10 bu ñu laaj bu nee ana mbari yi day taxaw nga taxaw kon mbër yi nañ joxante cer seen borom bay yàqante bi bay xam nga li gën a bon ànd muy neex nga wet jëwante te loolu la loolu la mbër yi loolu xam nga dama dégg loolu la mbari dund ku ci fi gis sama morom ne ko yaa fi nekk te ne ko fi yàggati yàlla na ko yàlla na ko yàlla yërëm yàgg na woy lu mel. noo amiin soo ci lu ne ngay gis xaddi bi yërmaa ko mu dafa da ko woy ba tey ñun fu ne lañ dem làmb kon sport bi nañ mbër yi nañu jox seen seen mbëri moroom yi cer jox seen entraîneur yi cer surtout seen entraîneur yi yow mën nga jël nekk ab entraîneur nekk mbër sab entraîneur bu bu ngay baayam waaye boo xam mooy sa entraîneur moo la yëlif mo lay yelif lañ ter bi lay jox non nit da ko jox ter mu daw la ko waaye nag jël sa bop ne mbëru mag nga sa entraîneur di xele nga nga bokk minimiser lolou man d'accord ma ci d'accord ma ci dafa ñaaw te bu ñang bu ñangé bu ñang ñep dem tok mo tok ci siège bi bo soné mom mom nga ñëw ko may ma ndox ma nan bu ñu tagal ci mom nga jëm jox ko cër ko cër nit nit mën na nit mën na jangal bayam nit day jangal bayam ok mais euh bawal fan la bawal toolu maman bi sant bu baakha baakha baax a baax wax dëgg allah mu ngi sant bu baax waaw sante bu baax wax yalla yàlla Tapha Tine gars doon xaar combat depuis bimu mu ci combat digënté mako Bombardier ñu gis euh, keroog Alburax event di Baye ndjay taxawal combat digënté mako ma sen combat boobu combat bu la wala combat bo doon xaar non man man carrément wax dëgg yàlla bettu ndax komba Ama Sène Tapha Gueye euh, Tapha Tine combat la Ama Sène luur yëpp Tapha la bëreel na mun naa la luur yëpp mu Modou Lo Modou Lo Modou Lo bokku ci ñaar fi nekkoon combat jàng Modou Lo loo Tine Ama Sène Tapha Tine waaw te Modou Lo Tapha Tine aw ma ci yaakaar aw ma ci yaakaar pour ñu bëre aw ma ci yaakaar waaw ndax ma xamna naa ne am ci luma ci xam lu leer waaw ah, amuma ci yakar ah, non ñun ci aduna amul mbër bu ñu moytu non bu bu timis xam nga xam nga lana ko jaxal talu <laughs> sawara mag jamon ñoo ci tagget ga dañ doon buñ jël buñ jël timis bu ñibi dañu tal njaat nga ci tagget gi dal li ñibbi bukki du fa jégué am di talu talu sawara <laughs> non non am di sawara la eh? lay xelun def la eh. gëm na way fayut ku ci wax boo jagal ak moom. li nga wax sut wecc. ah li ma jaaxal la Modou Lo mooy roi des arènes te Moussa Wassine dafa bëgg a nekk roi des arènes. ba leen seen caaxaan yi Modou Lo nekkul roi de ah, nekkul roi des arènes. Ah, roi des arènes ñaar fi am. ci Sénégal. Baye Gilles Balde fi nekkoon roi des arènes ak Manga 2. ñi ci ñëpp ay roi roi ah, amu fi seen seen wàll moom. passé wul passé wul. passé non da ngay déglu non xanaa kon waxatuñu sport. xanaa kon waxatuñu sport. ñoom ñoo fi jiitu woon ci roi des arènes. da ngay déglu. loolu li coono yi xam nga fan la commencé. ca Tyson Manga 2 fala mo fek mané ma ne bot di tak ngem mu tay tay dan ma nga ñu ñu tay na roi zarin yekin daan ah, boy mbur daan ko ñu nak moy roi zarin roi zarin dañuy tegg wa tanori bu de huit ñu def ben tournoi ku daan ñep jël ko ma nga def fa la ko jëlé sama kanam da nga gis ni roi da ci am ñep organisé woko yeen yeen yeen journaliste si roi bu am yeen ko fol ah. roi amu fi dañu wante dëgg gëm ma ko man boo yi ñëw nii ñoo mën ñi ñi ngi def ay roi fuuf ay rëg-rëg ay Sa Thiès Franc boo yooyu nañ nañ teg euh, euh, tournoi quatre grands quatre grands grands yu mag yi ak boo ak boo yooyu kenn du am fukki dërëm ah. kenn du kenn kenn non la la de la de guerre allah xam nga tey Lac de Guiers bu rëm man xam nga kañ laa ko wax laajal am du mu sawatin ba mu ko daanee la laa ne mbay mbay ñi ma ne ko barke Cheikhul Khadim champion nga ne man ñaanuma xam naa ko mën a bëre ndax dañ dañ ko préparé ba ba ma ne ko bu la kuwam laalee ma ma ma bàyyi lamb ji mu ne ma père du ma dóor na ko duma Lac de Guiers sàcc na daan jël bu yomb non jël bu yomb kenn du ko wax du waaw ah, ah? <laughs> kenn ko du yomba jële gaañ ah Moustapha Ngongu gone bawol gi wallaay mu nga noonu mais dañuy taxaw ci diggante euh, Tapha Tine ak Eumeu Sène comme moom moo taxaw Tapha Tine Eumeu Sène kaa ma tey bëre bi bu amee cinq minutes euh, euh, Eumeu Sène am na ndam waaw itam tam Eumeu Sène Eumeu Sène mbay mbay mbay juula maasel tafatin bak loo judd 82 la tafatin judd 82 kon bu bu espoir waxee dëgg rek lam ji war war am 5 minutes. ah, <laughs> ah waaw kon. yi jàpp euh, mag ñi jàppe xale yi. non ñun bokkuñu ci de. Hmm. am am am di bokku ci de. Hmm. wallaahi laas yi maa wax lii. mais nag ñu bëri ñu ne euh, tafatin mooy xeex ak Eumeu Sène. lu lu ñu am baax la tafatin xam nga li li li nax nañu. kaay ma wax la. waaw dégg nga ma wax la. mos sa diggante yàlla mu ngaa gi tafatin ku mu jàppanteel yaa ko daan ko. musul am jappante mu japp nga japp nga daan musul am ah mais digënté ba isa fa gis mag bañ ko jappé ci ngëm diko wat ba mu tedd ba légui gënga ku mu loxom japp nga daan ko wax mako do gisato ko fenn kon ama bu arbi non trip mu duggal loxo bi ci ngem tafaati tafaati da koy da ko yëngal ba mu tedd ba mu tedd yow gi nga ma kii tubaab bi Nafa. tubaab bi Ibou Nafa. tubaab tubaab joor. man dafay doxal ba ba tubaab dem ko sol. da koy bàjjee ba mu ba mu tëdd waaw. nga la ma wax bu baax. mais nag li ma jaaxal Eumeu Sène bokkul ci mag ñu jeexal jeexal waaye bu mag waaye bu mag jeexal lu lu lu lu gune wax. boo naa mag ne gune nag kon yow wax nga dëgg. jàpp ni Eumeu Sène fi mag la. non non néew ma la mag la dama la dama li mu ko magee. da nga ni waaw ci lu kon yaa ngi koy yóbbu ci mag ci lu wér. nekkul mag yooyu jënd la lépp fi la mu fekk. magam bi muy sum fii Pikine. maa ngi maa ngi ginnaaw raay. waaw kon kon nga am na xam naa ko bu baax. Ngom laa sant Ngom laa sant moom mu sant Ngom. Mhm. xamuma waaye xam naa ko bu baax. Tapha Tine loo jàpp ne mooy avantage am ci làmb. Tapha Tine bu lu ñëw baax na bu ñu bëree baax na bu ñu xeexee baax na. wallaay nañ wala nañu def cinq minutes par exemple eh? billaahi wal billaahi du gisu maa la otam gaañ non xoolal xam nga kun ku ne këru mag battement këru mag ak battement këru xel du benn du benn nag yow tam xam naa ne maa yow jëm. Euh, damay ñaan ndox rek damay ñaan ndox rek damay xel ñaan ndox rek <laughs> am déet damay xel loolu laa ci bañ

kon daal yow bu ñu bëre kon yow ci xel ñaar. dinañ bëre bu neex macha allah. bu ñu wëree bëre gis lamb ju neex neex a neex waaw. ko mu yeex. non mënu yeex lamb tabatin amazène mënu yeex amade attaqué tabade attaqué kon nag mënu mënu nañ bay mbëri ñu bëre rek. nañ bay mbëri ñu bëre rek. Ah, kii boog Eumeu Sène moom day ñëw bëri xaw ma la tabaat. dama lay lu leer cote yi ñaar ñaar ñi toog ci banc bi nañ bàyyi mbër ñu bëri rek waaw bëri bu neex barke sëñ Tuubaa mais avant may jeexal foofu tey certificat médical yi nga xam te ne mi ngi am ci biir lamba ji xam nga euh, CNG dafa waxoon ñuy wax naa kii gi nga mbër warul toog ba mu yàq làmb jàmbur teguñu ko fen weer sax waru ci yàq làmb jàmbur xam nga li xam nga loolu li koy waral mbër mbër moo jox avance parewul mbër du préparé day pare bu jëlee avance day dool tuuti rek bu desee 15 jours wala weer maintien lay def maintien waratul gaañu nun bi ñu bëree xalaatoo combat bi des ñaari weer ya koy gaañu ndax dañ lay préparer techniquement physiquement logiquement waaye mbir mu jub combat di gaañu ah man sama sama baay leen wax ne jëkkoo jëkkoo ma dégg ñu ne bu la bu sëñ bi xoolee ni baaxul ñu ne dañuy dugal seen loolu loolu ma sa bopp man wallahi la azim sëñ sëñ Fallu lañ ma tuddee dem naa di bëre ji génn ci buntu kër gi sama maam ne ma tey da ngay daanu ma ne ko yaa jur sama baay waaye di nga xam ne man maa mën a bëre fala bay bagaar yi dem daan ko ñibbi si ngay sa bopp da ngay sa bopp man am naak langsaane yaayam ne ko tey mënoo am ndam moo ko waaju Pikine ji nu mu tari Mansour Diop ba nu ñoo xam nga lu ñu ci lam ndox Iba Mar Diop lang ñëw daan ko ñibbi da gem na yow da nga xam ne yow dama am la man ma man sama dom bu bu bu gëmee loolu di mbeur ki jur bayam di mbër kooka ki jur bayam di mbeur bo gëmee na mbeur nga da ngay nek mbeur waaye bu ko gëm ci ab sëriñ sëriñ mooy quatrième man ci man sama sama lisage 4e ci ci bëre da ngay mën a am doole am xel mu reuy amu fit so ko uti galaj yow tam yow bu ne bu ñu joxee ndomo gi ne la ne la dangaa tul waa ji gën a jaase nga naan kaani an ndomo ga li ñu ci 90 dañuy wekki sànni 90 pour cent dañuy wekki sànni bu lam ji demee 10 minutes ngeen jàppante rek xel sànni léegi nag sëriñ bi la joxoon ndomo ga am na lay voilà dañ fàll bëgg naa ci yow bëgg naa ci yow ziar nañ la jërëjëf sama xarit waaw amul problème no war si ben bi na no do di be joma ba ka